ci Leewtoo TV rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag samedi lay tombeel 15 comme ni ngeen ko xamee yaa ngi dégg arène nationale la ñu nekk gis ngeen suñu ginnaaw nii mbooloo maa ngi di dugg Gris 2 Reug Reug Quench Diène Kairé armée bu benn baraak caat bu booy bambara noonu la demee tey ci Leewtoo TV nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm den wax ne nag tey Talla Ndiaye gis nga fi ñu génn tey fii ki nga xam ne nii mooy Aliou bu Yankaaw taalibe sëñ Babacar si ca marché Thiaroye moomu fi génn tey ci semis ak si tubay mais dàll yi ma caam ca Colobane sama doomu nday happy moo ma génn fii moom xam nga dàll rek lay jaay kon dañuy dugg ci biir ngeen topp ñu wan leen li fi nekk yëpp ci Leewtoo TV dara du manqué incha allahu rabbi nag dugg nañ ci arène bi gis nga sécurité bi tey rang bi gars yi bàyyiwuñu dara lépp la ñuy lijjanti police yi kon fii moom boo ñëwee ngir jàmm di fi jëlee jàmm boo la fi leen andee nag loo fi góobe rek yaa koy gar. Eh, waaw onda ngi taala ñaay <laughs> waaw kii du ond la fu. mais Babacar jël ma. mais xam lu ma lay laajam combat tay bi noo ko gisee yow en tant que mbër xam nga ñaari mbër de. kan ak kan. Gris 2 Reug Reug. waaw Gris 2 waaw Reug Reug moom il est confiant quoi. confiant boobu lu baax la ci moom wala. waaw baax na ci moom parce que. par mbër mbër fekkee ne am nga confiance mën ngaa def lu ne mais moom amul parce que lamb ji yëpp ñoo bokkoon di ko entraîné maa ngi moom benn salle bu nekk Caaroy mais avant combat ba léegi mi ngi doon wax chaque jour dama koy duma dama koy daan. gis loolu mën na ko pour mën na lu ko ëpp. affaire yi fi tamit waaye waa Kër tamit bëri nañ fi. loo bëggee man ñoom ñëpp laa àndal. amateur laa ñëpp laa àndal. mais nag maa ngi si rëg-rëg. am na solo. kontaan yow. bëgg naa yéen kayra la waaw mais yëpp ñu ci gannaawam yéen fu ngeen jógee Medina lañ jógee waaw jël kayra yàlla ko yàlla may ndam jël kayra yàlla ko yàlla ku am su ne ko dañ koy domoda eh, dooram combat eh, dooram combat bayre la lam daal ay paa jël Balla Gaye Modou Lo jël Balla Gaye Modou Lo nguufaan moom la ñuy def ko ens Fallou ngi ni yow man jël laay super tey mais sama champion bi sportif bi ah, yaa ma gën a xam rang muy gaaw Eumeu Sène bu ñu ko jàppee nag mu xam ne lépp dëgg la. voilà armée la armée armée armée armée armée bu benn barak la armée armée. mille caisse si kaw la jëm si kaw. barke Serigne si kaw la jëm. may leen ñu ko yéen tamit taxaw leen miis waa kër jaar nañ fi ne dañ leen di daan nu ngeen ciy tontu yéen. loolu ñaa sinap xam naa sinap ba ñu jaawee waaye ñaa uññi. da ngeen kaa dóor moo xam ba pare soo kaa daan. da ngeen kaa dóor ba mu. doon cadre ba mu xam ba pare. waaw ñu soog a daan. est ka géej. yóbbu waaw. mo. mbawal la Babacar. amoon <laughs> bëri maa lay bëggee yaroo ba. maa lay delloo bëggee toog. ci sant Serigne Touba. mais da ngaa ñëw seetaan. damaa indi caat booy bambara nag. Ah, caat laa àndal waaw. billaa wallaay 100% maintenant ragaluñu dara. ak Baye Fall bi Baye Fall bi daa am la di ko yaram may waay bëgg naa la waay moomoo waay Babacar moo léegi ku bees la ndeysaan te mooy bëre lii mooy lan ba sama doomu yaay sama grand frère ndeysaan mooy doomu Caaroy day waay di avenir lu Caaroy waaw waaw xale bu mën a bëre ndeysaan xale bu bëri jom ndeysaan bu bëgg waajuram den waay moo tax su ma koy tegal dama si def lu ma si mun ñu ngi ziar bu baax. ci loo ne. sant bu baax. tey da nga am kuy bëre tey. waaw sama rakk may bëre tey. loo leen bokk. nga bokk benn baay. nu mu tudd moom. Ama la tudd moom. Apam. Papa Falaye ndeysaan dee <laughs> ngay ñëw de Doudou Niane ko andi eh Doudou Niane la àndal tey Doudou Niane ko andi Doudou Niane ko andi jéena ngay jat ma ngay ñaan ànd ak Mao Talla Ndiaye jéen ak Mao ak Doudou Diagne jéen ak Mao na ko andi de in kayre mu ngi koy sotti butéel ya riidoo ngay sotti xool Père Kayre ca Elba Père Kayre nga butéelam moom itam yéere ba xoolal lam ca def oh. ren bi day wax tey. ren bi tey muy ba muy a fi wàcc. looloo wóor Lamine Seck. ak yeneen sept combats. waaye day neex ba yegg Père. les vingt ans de a fàtte borom waa jéem a ngi taa di jaayu rek. ma ngay jaayu. waaw cey. ma ngay xool waa Gueule Tapée ndaysaan ñi ñooy waa kër Diène Kaïré tey bu bokkal benn baay nee na ma ñoo bokk baay ku wen sag maama Lamine ku sag yi nii Talla Ndiaye maa ngi nii mais ci yoone sant bu baax naka yëm sant alhamdulilah mais tey mbooloo mi mi mi mi daa yokku tey mbooloo mi ñëwaguñu ñëwaguñu ñu ngi ñëw ñu sag borom bari yi géej ee eh, Talla Ndiaye cat ba cat waaye Quench waay ee eh, waay lii lan la lii lii lii suñu borom la rek mooy suñu borom la tey lan moo war tey tey am am rek moo war parce que mbooloo mi daa bëri lool waaw ñëwaguñ sax mbooloo mi ñëwaguñ tey xanaa jàpp ba mu doon teg tànkaam di am ndam dara mënu ko fa teree teg dégg nga ma dara mënu ko fa teree teg seen combat non moom bu bëggee mu gaaw mu gaaw que moom mooy xaar. Hmm. mooy xaar mooy lan lan lay xaar. mooy xaar mooy arrière. mooy dellu ginnaaw. naaw eh way armé day soox. lii cosaane na de lu cosaane ngay gis nii lii mbirum affaire la taa yow la lii affaire la lii affaire la maa yàggu dal. a ah, day tapale a ah, armée déen waay walay bagage la armée ngay gañi de armée ngay jat ñaan laay lamb naxante la nag Lamine pexe daa bokk ci lamb ah waaw kon woo Talla Ndiaye Talla Ndiaye kaay ak ñu ngi génne ay oto yu yebi bagage san giri da xanaa tey day basket yi pàcc bi moom pàccu basket la war a mën a doon Talla Ndiaye xool pàccu giri bi ak noir fumier ya mu ngi reetaan tere dañ laa tere wax tey ku la tere wax xanaa xiif kañ ngay añ banaana baa ngi lekk ci agressé ji ay njaay Ndiaye banaana agressé lii kay waxuma la sàmm comme ku yor say nag walay xar lii àll ba may fàttali Talla Ndiaye yor yet ak tengaade ba am na lu vert mu téye ci loxo bi Talla Ndiaye yore benn béjjën Pafton tamit Pafton daal tey weex na ci stade bi Pafton tey am na bayre de Lamine rëg-rëg Pafton giri Pafton xaw ma Pafton mi Jolof la jóge wala ba Mohamed Maynu giri de de eh giri de Gris 2 dugg si na Ndeysaan inde ba ngoog ñu timal ko di ko sotti waaw xoolal lii waajaa ngi fas rek ay bëgge ci loone maa si jàmm baax tur bi la. fils de Fallaye. loo bokk ak Sa Thiès. ñoo bokk benn papa. yow yaa fils de Fallaye. man maa fils de Fallaye. tey mooy sa premier combat mas nga victoire. Uh-huh. koy bëreel. Ndigaan li. Ndigaan de. Ndigaan. yaa yaa yaa yaa Sa Thiès wala Balla ku dàq bëri. non affaire bi noonu ci deret bi la nekk. moom mooy ndongo bi dañ yaay seen taalibi. maa tey yaa ko andi de. waaw Ibrahima yaa ko andi de dama koy gunge ku nekk mën nga nekk champion daa mel ni. waaw loolu wër na waaw buñ ci ko rek waaw. xale bi loo gis ci moom. la dèjà ren lay doog a mën a 18 ans am. waaw wala lu ma ko dama koy ñaanal moo yor nit damay sàmm doomu aadama damay ñaan yàlla sàmm la ko waaw mais parce que li ne ci ñun ñëpp li ko raw mi ngi waaw maa ngi nii rek sant. noo ñëwee tey. waa ni ma daal ñëwee rek xam nga fulla ak fayda jom def li ñu war a def waaw ñaan yàlla may ñun dam géew bi lu gaaw mën na am. waaw mën na fa am làmb la bu ñëwee mën na mën nañ dëggal suñu boobu ñun ñaan ñëpp mu jeex bu bu ko neexee tam ñu jël suñu temps rek waaw moom mooy. dama la mais père ñu. ñu leen di sama gars yi. ci loolu yaa ngi am waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam vraiment di rafetlu seen liggéey. waa di ko rafet lu baax. père lu mu yëg. waaw li ma yëg rek mooy ca diggante njureelu baay ak doom la tey ji ku nekk xam ne jéen dafa am fu mu toll si man ngir lan ngir man fa ma tegoon sama tànk si jom ak fula ak fit moom foofu la teg tànkam. caata ngi noonu ndeysaan champion champion maa ngi lay bëgg. waaw ah, baax maa ngi fay. ci loo ne. sant yàlla waa Dionewar waa Niary Tally. Ah, ñëpp a ngi jàmm waaw. tey noo dikkee. waaw ni ma dikkee xam nga yi ñëpp ma rek. ñëw def tànk ndànk 10 heures combat sa waay daan ko si kattan yàlla. ma gis sa adversaire yi dugg si di soox. mu mel ni tey seen làmb ji daa mel ni làmb la ci làmb yi de. Ah, làmb la moom làmb parce que làmb bu rek door lañ wax waaw doo bàyyi dara. Zil bu Sali Zil bëgg naa ñu ngi lay fay sama waa ji ñu ngi lay. ci loo bu wér. ana waa Sali ñu mbër maa ngi lay bëgg. ci loone fooy naa la maa yaa ngi am maa ngi sant. ana waa Medina ak Fass. a ngi fi ñu nii. tey noo dikkee tey. waaw rek comme na ma daan ñëwee. lu waral tekkaaral bi. waaw loolu lañ ma sañ. maanaam tey amul yëngal daal. non dina am kay tey bisu yëngal la. Fall daan na Boy Diagne Boy Diagne daan Gris 2 ngay saraxe ànd ak Gris Bordeaux Fall yéeg na saraxe na ba pare mais mais champion déet waay déet waay <laughs> mbër maa ngi nii xoolal lii Talla Ndiaye mbër maa ngi nii ee eh, Gris 2 ngi mu ngay saloo déet ee eh, déet waay nee na ko ambar lii lan lu xew yaa ngi yëngal de loolu mooy lamb ji du leneen soufflé na taal deuxième combat Batlenski à droite Sara à gauche Sara Batlenski nu woon moo jëlee Fass Saara door dooraat Saara nag poulet wu góor a soxla bat leen sikkee ngi noonu bat len sikki ak Saara Saara ak bat leen sikki Saara ak bat leen sikki Saara ak bat eh, ko Saara jël na ko daan na ko jël ba rëy na Talla eh Poulay wu Gora ba daan na jël bu rëy la daan ba leen sikki oh. tàccu waay xoolal lii waa bari ñu champion maa ngi lay ci loolu nekk nees. sant yàlla bu a baax. ba am dëkk am. waaw sant yàlla bu baax. sa rakk tey say rakk laa wax nu la indee tey. waaw comme confiance plein. ñaan yàlla rek yàlla may leen ndam. mais def na li ma def lépp def nañ ko. Uh-huh. Uh-huh. mais suñ fo ci la la nekk. sama ruxu rek comme d'habitude. maa ngi suñu daaw suñu am di xaar. kañ ngay génne ruxu <laughs> combat de la soirée wala cinquième combat boog Famara moo féete à gauche wala moo féete à droite Famara bu simal ak Boy Kaasa bu taay si nga Boy Kaasa taay si nga na jël ko daan na ko away eh ma duufa góor si xam saare maya ndige maa ngi lay ziar Reug Reug loo bokk ak moom après ngay comprendre tey noo ko andee tey comme ni ñu ko daan andee rek ak fierté ak xel mu dal ak xam ki ñu yor ak xam fi mu jëm ak xam li mu doon. Gris 2 lu ngeen koy wax na dal jàmm rek te xam ne verdict ba la ñuy xaar Youssou Ndour moo ko wayoon bu Pape Kane Mbaye Guèye tey lay leer man maay doomu Modou Kane rakku Papa Kane di papa ci Reug Reug. yaa jëm si Iba Mar. waaw suba. bëgg naa si kàttanu yàlla balaa 4 heures et demi mu tëj stade bi bëgg naa ko. bii ñaata la. bii 2000 la 3000 10000 mais bëgguma ay dolli képp kuy dolli jënd bii 2000 la da ngay dolli pour egg 2000 ngay dolliwaat amul dolli ndax tribune bi Bamba Fall jënd na na amateur yi teel ñëw ñu enjoy événement bi koos ko ba mu jeex suba la suba nag fa laa la na Daouda Sandwich rek ki fagale moo féete góos Zil bu Sali waaye Zil Ousmane Gandiga la ko ni waa Zil a gàtt moo am ndel bi Daouda Ndiol karaw ga saq mu féete waaye loo ci mën a dey ee eh, déggal loolu bàyyi dem ba nii rek moom moo ngoon Bukki waaye Talla Ndiaye ee eh, Mbaara Bukki jël na ko daan na ko daanu nga sil sil daan ma bëgg feenu kaay 100 pour cent Issa Pouye ngi nii Baye Mandione ngi tey ñu ànd ak rëg-rëg Issa maa ngi lay bëgg. waaw maa ngi lay fay bu baax. mu mel ni Thiaroye tey dañoo àndaat benn nekk bokk ndey bokk baay. Thiaroye loolu mos a dem Thiaroye benn bopp la ñu mën nga xar ñaar benn bopp la mos a doon ñu nuyu waa Thiaroye gépp ñu nuyu sama rakk Baye Mandione ñu nuyu sama rakk Dios ak eh, Ousmane Diop ak ak sama waaj maa Diop say Thiaroye ñu nuyu gars yëpp ñu nuyu sama grand frère Amar Sène Reug Reug si rakkal ak Amadou Deme ak Thérèse booy yëpp suñuy booy nan dañoo ñaan leen yàlla Reug Reug yàlla may nga ndam loolu la ñuy yàlla quoi tey jii. combat mën naa gaal mën naa gaaw bañ sax làmb ji mën naa gaaw mën naa bañ a gaaw nag ka ka kii bi rek poids la parce que su bëree làmb ji gaaw man tey boo xam làmb day yeex mais su bëree moom da ngay naan doomu gaaw soob yàlla waaw. bu baax a baax sama sëriñ. tey damaa gis nga ànd ak Reug Reug fecc fecc fecc bu doy waar sax waaw yëngal gaa yi. waaw Reug Reug suñu la suñu lépp la ginnaaw ñu sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di kontaan trop bi nga def ñu ñëw rek ngir jàppale suñu rakk Reug Reug yàlla suñu borom may ka ndam loolu kese lañ bëgg ndam rek soxla ñu leneen ndam rek lañ bëgg ndam rek. diggante Thiaroye Fass su ma ci ñëwaatee sànne mu mel ni seen diggante dër bi lay doon chaque jour. waaw non loolu làmb la parce que li li kenn ku nekk rek ku yàlla booleel rek yaa ngi dégg képp ku la yàlla booleel bu soxla si dara muy Fass muy Thiaroye Chem nanu yàlla may ndam rek Reug Reug na ndam loolu soxla ñu soxla ñu leneen amul Faas amul Thiaroye yàlla may ndam rek la si yàlla may ndam kese la soxla quoi vraiment yéen a ngi yow foo toll yaa ngi ci préparation de. waaw maa ngi liggéey bu baax nag. waaw gisoo loolu yow. <laughs> yaa andi tey sarat wala sa doom wala sa jarbaat Reug Reug actuellement fi mu nekk nii lu ngeen yëg nii. waaw comme comme comme li xaar yi daan yëg rek bu daan si. comme ni ñu may yabee rek noonu la ñu koy yabee ni ñu ma daan mais tey nag dafa am plus. ndax tey caaro 100 pour cent la. kon yaakaar naa ni tey kon kii nga xam ne mooy giri dee di war ñoo jaaxal daal. waaw ma gis tey Thiaroye 100 pour cent ni nga wax Baye Mandione Issa Pouye Khadim Ndiaye kon Thiaroye kenn desul. waaw xam nga lii mooy yoon lii dañ ko waroon njëkki sax ñoom bu ñu ko njëkkee woon ñoom xale yi kon egg nañ fi passé nañ fii ndax yàgg naa leen ko nekk benn mais tey bi ñoom ñëpp topp nañ ci ginnaaw rek rek muy rek ñu ñëw nag dama lay wax ni ci combat bi bu arbitre soufflé bu ñu jàppantee bu ko rek rek jàppee jugal ñi bi xam ne làmb ji jeex na. bu ko jàppee rek mu jeex bu ko jàppee rek am na xeex bi rek la ñam la ñam ci làmb ji. amuñu bëre boo xam ñu bëre bi non non merci. armée Thiat ñu ngi doon taxaw ndeysaan Thiat à droite armée à gauche armée ngeen mu bu weex Thiat ngeen mu Lagos arbitre baa ngi leen di laaj armée lay déglu day ñaan armée day ñaan armée soufflé na eh Thiat Boy Bambara. féete droite Armé benn baraak féete gauche cey lamb nii ndeysaan la ilaha illallah arène waa tey moom arène nationale xam ne yëngu na tey bilaay yëngal nga ko ba mu yëngu tuuti na taala waaye lii dafa neex waaye Ndeye Fatou ak Ousmane ñoom ñëpp ku ne am nga avertissement xeex caat jël na ko armé bañ armé sol na ko caat mbaar dëbb naax mu bañ eh caat ak armé jàppoon nañu Talla Ndiaye dëpp na ko caat armé. ndaysaan caata nga bëgg a jël tànk ba ca suuf armé bañ. door na ko door na ko jël na ko war na ko eh armé maa daanul caat wala caat maa daanul armé ànd nañu jóg dooreet jël amagul. armé caat jàppoo bi yàgg na. bëre leen seen combat yàgges na koo dox xëcc na koo da koo bëgg a wéyale armé nga koy gëdd armé daw na jël ko armé caat armé caat caxabal na ko caxabal mu tëdd Talla Ndiaye caat bu ñaari tali borom NCB xool armé ni mu tëddee xool armé bu baax a baax a muy Gris 2 ah, moom mooy rek en général man de dama tàmm ak xale yëpp ah. ku ci nekk damay laaj loo bëgg nan nga nar a bëree ba nga xam ni ngay bëree ma dooleel la ca lay doon leen koy bañ ba ak lay doon gënal la. mbaa préparation bi yàgg na. Gris 2 nag liñ koy a jàngal bariwul dañ koy won yoon mais jàngal ko passé na li muy jàng jàng na ko léegi dañ koy wax pour mu tari si tey maanaam moom tànku ndejoor la adversaire am tànku càmmoñ lay jiital seen ñaari tànk boo xalaat presque ñuy fóonante waaye nag noonu tànk yi di fóonante nag taxul nag ku gaaw a mën a dal kanam nga dana xaw a sori tànk xaw a waaye nag am na benn effort booy def pour mun dóor sa adversaire et xalaat nañ ne aussi Gris 2 pour mu daan Reug Reug il va falloir kanam bu jéem a tàngal kanam bi tuuti tàngal soit peu day day am ci combat ah. mën nga wóolu sa bëree mais ne damay dóor ba yëngal ko doog a bëree ak moom en ah, souvent day am mbër bu ñu mosagul dóor da nga koy jéem pour mu tàggoog soxam li may fàttali ndeysaan bay bëreeg Balla Beye euh, numéro euh, Balla Beye numéro un boobu tam jeune lutteur la xamagu ma dóor miinagu ma dóor mais copain la ma dóor may xaru di fayu luppee ba wàmb ko parce que c'est important ça ci biir jàppante bi nag da ngay gis ne kon ñoom ñaar ay ñaari mbëru gañoo lañu ku ne day bëgg a dugal loxo da ngay ko xam ba nga xam ne day dugal ay day dugal gañoo kuy dee aussi dafa sawar ci dugal loxo càmmoñ di wàcc loxo gauche donc ñoom ñaar combat bi dina gudd baa bit dina yàgg léegi nag mu am benn détail ki gën a luur moom mooy Gris 2 moo gën a diis ci poids donc ki gën a gaaw forcément dafay nekk rëg-rëg mais nag boo demee souvent ba am cent vingt kilos yu tegal sa gaawaay vraiment dafay des très souvent parce que liggéey bi war a def pour méngoog sa cent vingt kilos yooyu gaaw dafay raar mbir koy def donc daal ñaari mbir la ñoo xamante ne tey jii lu fi waaye mën wax it ñii ku ne mën a daan sa morom yaa ngi wax lu nekk. mais combat bi ci diggante Thiaroye ak fàttali. mën nañoo fàttali ay génération yu dul jeex mën nañ ko commencé peut ci mbéygee Papa Kane la mbéygee daan ñaari yoon Papa Kane daan mbéy mbéy mu daan mbéygee benn yoon mën nañ fàttali ay Sadio Camara Djibril Wade ah Sadio Camara. Sélé Dieng sama diggante Khadim Ndiaye diggante Gris Bordeaux Baye Mandione diggante Feugeleu Euh, Djily Mbaye ji bàyyi ma ñoon Djily Mbaye mi ngi toog sax na kon histoire la mais nag revanche ah dañu bëgg revanche pare naa waaw a mais mais mais mais Tafa dafa am lu Xaadim Ndiaye wax nee na Reug Reug day duma giri bu dee ba mu tëdd door ko daan waxam xam nga tam nit ki tamit man loolu laa yéene man damaa yéene euh, daan Reug moom tam mu yéene ci côté rek bu ñu mettil loolu la bëgg bëgg bëggam la wax. est duma mën naa am. waaw duma mën naa am si ñoom ñaar ñëpp nag. ah si si si ñoom ñaar ku jóge fi fan la. nga jël kurpeñ ci ñoom ñaar mën nga perte combat benn kurpeñ nga mën a yàq bi. mais la mën a yóbbu. ah eh, yàlla nag fii la koy waxee. lillahi wa rasuli yéen mbër yi bëree ñu di woowee VIP ak les meilleurs ñaari xale yi ku ci am ndam ubbi leen yi bëree ñoom te xam ne bu ngeen di tolloo ñoom ñoom dañu yi bëree ak ponkol bu demee ba am 140 kilos kii dem ba am 130 kilos di mesure 1 mètre 86 jàpp 90 amatoo kenn ku ëpp ku la daan daan moo mën a jot daan la mais ñaari xale yi ma gis ñuy bëree amu ku leen mën ci làmb ji xanaa bañ a bëree ñoom rek fi nekk. Habib Ba ñu wax ak ñoom Talla Ndiaye. eh Laye Ndiaye bu na gàll. Laye Ndiaye sa mër maa ngi. ah Babacar. hélas bu jëm Diouf kay la borom Babacar loo jàngat ci combat maa ngi nii taxaw Talla Ndiaye non combat dañoo xaw a tolloo Talla combat jàngat ko day jafe fekk laalante wuñu parce que ñaari mbëri ñoo tolloo fi mu nekk nii dañoo tolloo ci lu bari. ah Babacar. Habib ngi laaj suusam day suuf la pare nga pare léegi jeex na Talla Ndiaye waaw waaw ñaar ñaar tubaab yi sax ñëw nañu taala tubaab yi ñëw nañu xool yi tubaab bonjour. ouais mes amis ils parlent pas français donc. Euh, ils parlent wolof. nous on vient d'Espagne. espagnol. ouais. ok tekker. Euh, moi c'est Bambou. ton nom c'est comment. waaw il m'appelle Iñigo. Iñigo c'est mon nom. Iñigo. ouais c'est ça ouais. Tu veux, tu veux dire au Sénégal pour la Ligue sénégalaise euh, Oui, presque. Bon, on fait des différentes vidéos, mais ça nous intéresse trop, la lutte. Ouais. Votre lutteur préféré Notre quoi Ton lutteur préféré Ah, on ne saurait pas dire. On est venu maintenant pour... On a connu là-bas, on était avec Jordan. Jordan. Ouais, on était à, sur la plage. Oh, c'est mon, mon, club préféré, Real Madrid. <laughs> ouais, il y a trop de gens ici qui suivent le football de Madrid. Ouais. waaw merci à toi. Fallu ngi toog kii xanaa daa jaaxle. Fallu daa tiit. Lamine Naar. Lamine Naar bëgg naa la. ziar naa la. xol bu fees victoire rek incha allah bu neexee yàlla Fallou loo yëg borom Leewtoo TV yéen a xew ci jamono fu ngeen dem dafa gos ay waay ki ma ne xam naa ko baay kookay jëriñ de ay eh waay baay ñu dégg ko Mame lii nag bees na ndeysaan te rek mooy bëre lii mooy lan ba sama doomu yaay sama grand frère ndeysaan mooy doomu Jaaray sàpp ñoo ko andi ko Reug Reug wàññi na ay gàllaajam bari na lu mu takkoon ca ndig la joxe na ko la ilaha illallah tuur la koy def dan na ko la ilaha illallah oh Reug Reug dan na ko jëli bu rëy rëy rëy jëli bu rëy la taala la ilaha illallah ñu ngi koy yóbbu. Cheikh félicitations. waaw merci Babacar. tey Cheikh noo nee Reug Reug tey. waaw ndam rek ah. ndam rek. parce que xam amaana ñun. doon nañ doon wax. mais gars yi mënuñu ñoo gëm. barki Cheikh Ibrahima. saa kees na jël xaat bi saa kees. ñun buñ demee ba ba ba ba ba ay giri di ñu jaaxal si làmb ah, ñun war nañoo mën a bàyyi bëri nag dem seetu leneen. Ah, parce que est-ce que duñ toog géejawaay lu xew ku ngeen fay seet. ah xam na boppam nag si na daw na nag ba seet si biir Youssou ba xanaa dina tourné. kan la <laughs> ko ah ah déggoon voilà ba seet si biir Youssou dina tourné. Sa Thiès nga yow ah yaa ko fi tudd. Ah, dama dégg gaay na yaa ko fi tudd daal. Ah, daw na daw na ba seet si biir moom daw ba seet si biir Youssou dina tourné te bu tourné moom yaa ma gën a xam. kan Sa Thiès. Sa Thiès dañoo ñu moom moo ngay jooy. ah mooy ñun dañoo sonn fële moo. mooy ñun dañoo sonn gàncax moo. parce que Seydina Mohamed. nañ ko. moomoo looy jooy. Bakar naa leen dama xam ki ma yor. te pom du moromu new. parce que Seydina Mohamed. nee naa la kuy ànd moom. da ngay am ndax ndaxte li ngay def moom moo la koy bëgg gën a bëgg ndaxte li ngay dafa métti. saa ñu lay aw na la kañ entraîné bi yaay yooyu aw naa la kañ dem ñu entraîné bi nañu dimbale nañu ñu lamb comme ñu jox ñu mag jox ñu tollal comme jox rek ñun duñu laaj jox rek. ni ngeen ko xamee tey fii di arène nationale li Nicolas moo fi woote woon di fête vingt ans andil ñu fi armée bu benn barak Diène Kaïré wala boog armée bu benn baraag ak caat bu booy bambara armée caat daan ko jëli bu rëy parce que da koo caxabal daw ak moom mu tëdd jaaxaan jéen a coin si nag mooy li nga xam ne moo bett tey amateur yi boo xoolee parce que fañ loon doon xaaree taala ñëwuñu fa ci bëre ak ci xeex ñoom ñaar na ku ne yaa ngi koy jiñ sa morom mais loo ci mën a dégg daal lañ leen doon xaare andiwuñu ko damaa yaakaar nag consigne la ñu bëree beneen combat bi ci des nag mooy giri de rëg-rëg ko xamee rek rëg-rëg wax ci moom dafa yomb ci làmb Talla ndax li simple bi nii la fa nekkee lu sa poids rëy rëy ak noo mën a toll ah boo bëree ak moom des fois ngis ci la naqari tey jii nag loolu la waat andil nañ ko mbër mu ñu andi rëg-rëg daan ko ci ni mu ko neexee ndax na Gris 2 ku ko mën a jàpp ci ñaari ngem yëkkati ko tëgal ko ci suuf jéggi ko jàll yaakaar naa kon am na ne ci yow kon Reug Reug na ko mbëru VIP gestu ndax nag fa gën a seen buntu de Talla Ndiaye kook kook kook la def buntu bi nañu wax ak moom kon nag félicitation Reug Reug félicitation caat bu booy bambara waaye Euh, ki nga xam mooy Dieng ak Quench yéen tamit ëllëg bu ñu leen joxee combat ngeen def effort mais Luc Nicolaï mention spéciale bés pro bës ñu ngi koy nuyu di ko siyaar ndax itam yombal na liggéey bi te su ko neexoon mu metti lool kon bés kenn du moom waaye Talla Ndiaye du xam nga koom